moom euh, boo fa nekkee ak boo fa nekkul rek moo yem ñun Sénégal rek lañu am ci suñu xol te moom rek la ñuy dund foo munti nekk ci àdduna soo yeewoo Sénégal ngay jéem a xool lu fa xew Sénégal ngay jéem a xool euh, mbaa ñëpp ngi ci jàmm euh, balaa ngay mën a def quoi que ce soit dëgg la nag fan yi gëj ngeen ñu gis ci xarale yi lu mel ni ay laay yu ñuy waxante ni jokkalante bi mais xam leen ni léegi mu ñëwaat léegi ñu tegaat ko ci parce que nag ñun ñoo jël engagement euh, euh, sampu xeex politique euh, liggéey suñu réew boole ci jaamuwaale suñu borom ndaxte jaamu yàlla la ñun ñoo tamit jël responsabilité def ay promesse def ay def ay intention Euh, am yéene liggéeyal Sénégal kon bu ñu defee loolu yëpp ba yàlla nangul ñu ko ñu am un régime euh, politique mu nekk en place suñu rôle ak suñu responsabilité mooy défendre ko mooy taxawu ko parce que nag euh, il ne faut jamais sous-estimer répétition parce que répétition dafa pédagogique dafa am solo ndaxte nag ñun xam nañu lii ñu yor tey lu ñu ko jëndee ñaata la dama koy wax saa su nekk xam nañu njëg li xam njëg li moo war a mën a tax ñu xam valeur bi live bi ci ñetti fànn la du gudd première fànn bi mooy ñun ñi nga xam ni ñoo àndoon wuti àndoon taxaw xeex lan moom lan lañ doon xeex ñun bi ñuy door a xeex xeexuñu pour falu tey la wax neex rek ku nekk di waxee lu la neex mais ñun bi ñuy xeex fii président Macky Sall xeexuñu woon pour falu dañ doon xeex pour mettre fin à ces abus ku nekk jóge fu nekk ñi nekk ay activiste ñi nekk ay politique ñi nekk société civile ñi nekk leneen ak leneen ñuy xeex parce que Sénégal fi ñu ko jëmee baaxul ci sénégalais yi looloo waraloon suñu xeex c'est normal nag c'est normal boo xeexee ba ñu jox la nga doxal te ci doxal boobu la ñu nekk mais bu fekkee ci yoon wi dafay am loo xam daf ñuy dab wala ñoo xam dañuy bëgg di fàtte wala di fàtte fàttelu de temps en temps dañuy taxawaat ne leen fii fàtte xeju fi fan la jóge yàggul démb kese fàtte xeju fi fàtte fettu xeju fi kon ñun xam nañu ni sunu rôle ci combat bii ñu ne waxuñu dinañ sotti lépp de dañu ne dinañu bay suñu waar def lu ñu mën ba fu ñu yem suñuy njaboot continuer n'a pas la prétention de dire que euh, suñu génération bi ñu ñëw au pouvoir dinañu régler tous les problèmes du Sénégal ci cinq ans ci dix ans ci vingt ans ci loo xam ni dañ ko yàq depuis 1960 ba léegi lu yàqu depuis 1960 ba léegi wala sax avant parce que nag le tractations bi waral indépendance juddu la avant 1960 ñu war a jubbanti lu jub kenn du ko jubbanti bu ñu nee dañuy jubbanti c'est parce que jubul kon ñun xam nañu fi ñu jëm xam nañu tamit suñu responsabilité dafa am ñoo xam ni nag dama yaakaar ni bëgguñu jàmm bu ñëpp ne tekk rek ñu ne xaaral ñu xuus jàll wala jàpp ne xëy na nit ñi dañu fàtte wala dañu naagu wala dañu doyal nit ñi dañu gisul lu waralati ñuy yëngatu parce que xam nga lu tax dañ doon xeex ba Sénégal tey am na jàmm ah kay tey am na jàmm ndaxte coow li bëri na toute la journée ñu ngi seetaan même ci suñu bërëbu liggéeykaay ñu ngi koy wàcc di seetaan li xew Sénégal ñu woo ay opposants wo ay ay chroniqueur woo ay euh, journaliste woo ay sénégalais lamda ay ñu yor ñu dénkoon ay responsabilité waaye tey bal tàkkul lacrymogène xeeñuur tey suba ba léegi bal tàkkul lacrymogène xeeñuur ñu ne changement amul ñun dee barki démb donc jóge suma kër di dem di wuy ay convocation gunge Ousmane Sonko mayu ñu sax ñu jege lacrymogène violence arrestation waa dëkk baa ngi changé nag changement nag moo yombul ndaxte comme li may wax rek lu dëng 1960 ba tey nga bëgg koo jubbanti munoo xëyri jubbanti ko dangay dox pas par pas dafa mel liir bu juddu nga di ko jàngal dox danga koy may mu raam jóg taxaw teg tànk daanu tegaat tànk daanu yaay ji jox ko tag téye ci mbagg yi may ko doole ñu dëbb tànk yi ndax mu dëgër mais nag loolu yépp nag du tax ngeen fàtte ñu parce que ñun ak yéen la ñu nekk ci langue politique bi dama ni ñun la ak yéen su ma nee ñun nag yéen ak askan wi la yéen ak askan wi la la preuve tey di gis nañu opposant yu ñu convoqué seen ay ñoñ di xeex ak ay journaliste lu masta am dama yaakaaroon bu xeex di am yéen ak force de l'ordre yi wala force de défense yi la waaye yéen ak ay journaliste ba ay blessure di ci am ñu ngi déplorer loolu ñu ngi gis nag ñu bare tey ñu ngi naqarlu nee nañu euh, liberté d'expression dañu ko dañu ko Euh, nekk di nërmeel ci réew mi man de sama waxu démb rek mooy sama waxu tey police bi fi nekkoon démb moo fi nekk tey te police bi fi nekkoon démb moom laa doon xeex seen excès de zèle te ba léegi nag dara changé wu ñu ngi ci excès de zèle ba tey ndaxte police war na mën a def liggéeyam sans pour autant li muy liggéey nekk ci espace public bi loolu du yoon c'est la même police li doon xeex démb moom la ñuy xeex tey waaye ñun sénégalais ñun ñoo nekk bi Sénégal ba tey dara changé ku fi. on a changé de président mais est-ce que dañu changé Sénégalais yi dañu seppi génne ñu dugal nit ñu bees ñun ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ak suñuy qualité ak suñuy défaut ñu war a defaraat lépp ñu war a defaraat lépp defaraat jikko yi defaraat toogaay ñi seen jik toogaay baax ñu baaxal ñi seen toogaay bon ñu defaraat seen ay toogaay loolu moom mooy dëgg police bi doon woote démb police bi doon toppee démb te ñu ko doon ŋañ ngeen ne police boobu moom moo fi nekk ba tey di jàppewaat di ngaañ ok mën naa nekk ndaxte le temps de la justice ne pas le temps de la politique lu tax ngeen bëgg a ciblé benn nit Ousmane Sonko ne moom la ni moom moo tax lii ni moom moo tax lii ni moom moo tax lii bu doon Ousmane la xam ngeen ni moom day politique ndax dafa jëm ci législative te fi mu jëm ñeme na ko ban intérêt la am di dugal ci justice di ko jaxase ak ak politique tere lan la nit ñi waxoon indépendance de la justice nañu fal ministre bu politiqueul nañu fal ministre boo xamante ne moom du xool le temps de la politique nañu fal ministre boo xamante ne moom du xool ne ñu ngi jëm ci législative c'est pas le moment d'arrêter des opposants nañu fal ministre boo xamante ne mësta dugg ci politique mais loolu lañ def dañu fal ministre boo xam ni politiqueul ministre boo xamante ne bu doon politique ni man may mun a day xam ni moment bii du ma convoqué ay opposant di leen may bës parce que mérité wuñu loolu dama leen di bàyyi ba mu jàll mais ministre bi ñu fal politique moom day def liggéeyam mu def réforme assise de la justice tab ay procureur am changer système bi bu doon ñun la suñu loxo nekk ci kawam comme ni ko ñenn ñi tegee woon seen contu démb a barki démb kon dañ koy timing dañuy xool fan la ñuy teg curseur bi kon duñ ko fa teg léegi parce que nag duñ leen may loolu défilé de mode solu simmeeku dugg génn wax ci lii wax ci lee hmm? ñuy gàddu ay saak seen digganteeg saak yàgg na ah ci ay convocation ñun ñaata weer la ñu fi convoqué dañoo mës sa gàddu sax pochette bay gàddu yi saak xam nga ni dëkk bi changé na ñu convoqué la nga am jotu sol yi saak wuti gàngar gogoo ñu lay gunge gunge la nag ba egg buntu fañ la woowee te baneen ba takkul lacrymogène xeeñul génn dëkk bi changé wul neen waxante dëgg tooñ moo baaxul tooñ moo baaxul te s'opposer c'est du sérieux s'opposer c'est du sérieux apprenez fii raccourci amu fii ñun tëb tëb lu wuñu ba egg fi ñu egg les gens se sont battus douze ans avec des arguments des propositions une nouvelle vision pour egg fi ñu egg nii ngeen bëgg teb rek bëgg ko jàpp ci lan wax bu ñaaw saaga xaste manipulation du matin au soir ngeen foog ni loolu moo mën a tax ngeen victimiser wu léegi ñun qu'est-ce qu'on veut da ngeen foog ni ñu sunu doom yi dee quatre-vingt-quatre personnes xeex ba ñu pour Sénégal libéré wu ba dee dañ leen di bàyyi pour lan pour dëkk boo xamante ne anarchie la amul justice lu waaye neex wax waaw man su leen neexee suba ba ngoon ngeen xëy di ma saaga chaque jour loolu am chaque jour nañu di saaga mais ñun mun nañu saaga saaga keneen saaga keneen entre sénégalais du mujj fenn sosal nit ñi taal seen ay live taal seen ay site internet di sosal nit ñi di fenal na ñi suba ba ngoon te dara du leen ci fekk mën na nekk mais xool président de la république xas ko ne ko waxoo dëgg jaar fi gën a ñaaw def ko premier ministre ngeen teg ko fan ngeen teg ko fan ah parce que dañuy door a toog ku wax dëgg di nga xam ni kàddu yii ñenn ñi di yëkkati fan yi ci espace public bi ñàkk yar la ak xamadi weesuwuloo loolu dañ leen waxante dëgg xamadi weesuwul ngay opposé wu ak nit ki wax ko ci programme am wax ko ci argument wax ko fi mu jëmale Sénégal am nga ci droit kenn du la tontu la preuve est-ce que mës nañ la tontu déedéet mais toog jàkkaarloog nit ki naan ko waxoo dëgg da ngay kàcc da ngay lii da ngay lii pour lan ban pays la looloo am ban pays bu respectable justice di bàyyi ki nga xamante ne moom moo jiite gouvernement am ki nga xamante moo jiite réewam même bu nekkante ne dañu xeex ñu ñëpp article quatre-vingt pour mu jóge fi mais nag xeexuñu pour anarchie ak indiscipline sax ci réew mi dañu waxante dëgg nañu waxante dëgg mais comme nag violence kese ngeen xam moom ngeen ëpp moom ngeen yore woon réew mi douze ans ñu jàkkaarloo ngeen opposé wu ak yéen à force d'argument ba jëlee leen fi tey même yoon bi rek ngeen mën a taxaw pour opposé wu mënu leen def leneen lu bees ma de si j'étais proche de de de de du ministre wala de ces policiers qui convoquent dinaa leen ne dama ni ñii ce n'est pas le moment bu leen ñu yàqal suñu victoire bu leen ñu xajamal suñu ay bàcc parce que dañu xam nañ ni dañ leen di bàcc bu leen leen bu leen ñu bu leen ñu yàqal ay dañuy politique nañu ànd ci terrain politique bi justice bi mën na xaar ah justice bi mën na xaar mais ñun amuñu je n'ai pas l'agenda de la justice amuma ko mais li ma mën a xam xam nga mooy lan mooy nañu waxante dëgg réew kenn du ci opposé wu ci wax bu ñaaw kenn du ci opposé wu ci ay sos boo waxee ñu ne ñoom ñi fi jógee ñoom ñi fi toog léegi lan lañ waxul nit ñi ana fenn fu ngeen mës a gis Ousmane Sonko saaga Macky sal ana fenn fu ngeen mës a gis ñun ñii kenn si ñun saaga Macky Sall wala saaga Amadou Ba wala saaga beneen premier ministre bu fi nekkoon musul am dañu waxante dëgg opposé wu nañu nag opposition bu dëgër këj teg ko ci sunu fit ak sunu dëgg te nag yàlla mooy ànd ak dëgg gis nga ku nekk ci dëgg sunu borom gunge la ku nekkul ci dëgg da ngay ci sa xare mais ñun sunu sunu xeex dañoo nekkoon ci dëgg parce que dañoo tooñoon looloo waral sunu borom jàppale ñu ndax yàlla lu jàppale kuy tooñ te yéen li ngeen nekkee tooñ képp la suba ba ngoon ci tooñ ngeen nekk suba ba lekk ci tooñ ngeen nekk suba ba ngoon ci tooñ ngeen nekk ci jàpp doomu aadama di wax lu ñaaw di sosal nit ñi di waxal nit ñi lu bon ci loolu képp ngeen nekk six mois yii fi jàll balaa nit ñi di sëqat di toog di wax sax lii mooy gouvernement bu ca ngeen commencé ca ngeen commencé nañ leen waxante dëgg aussi gémmiñ bi waxul dëgg wax safaan bi Sénégal li fi am dafa mënul continuer ñii di opposé wu te nekk ay kilifa yori doom yor ay mbokk nit ñi dañ leen war a xool ba xool leen ne leen yéen a nekkul ci dëgg parce que seen wax amul teggin naka ngay yeewoo di waxul dëgg di waxul dëgg diw def na lii diw def na lii loolu mooy opposition opposition c'est du sérieux opposition du aligner sa ay oto di wiw wiw wiw ci mbedd yi non non non non opposition c'est du sérieux si vous voulez vous opposer préparez-vous pare leen ngeen dëggal seen bopp ngeen xam ni opposition du lii opposition du singali benn doomu aadama yéen mais vous n'êtes même pas cohérent la preuve ñun one à l'aise yéen bu avez un problème avec celui qui s'appelle Ousmane Sonko moom ngeen amal problème amu leen sa problème avec le régime apparemment parce que da ngeen di xëy suba ba ngoon lan ngeen di wax du ngeen tudd président de la république du ngeen tudd euh, action de du chef de l'état chef d'état major de l'armée kan ngeen di tudd le premier ministre mais moom ngeen amal problème problème bi ngeen amoon ak moom démb te ñemewu leen ko woon wax parce que boobu da jàppoon ne sénégalais yi dañ koo bëgg tey nag ngeen ragal xam ni sénégalais tey lañ ko gën a bëgg ngeen xam ni ñu bëri ci yéen seen carrière politique dañ ko nar a ent dañ ko nar a suul problème boobu da ngeen am problème de jalousie du beneen problème mais régler ce problème bi en gentleman ngeen jàkkaarloo ak moom en gentleman ngeen jéem a analyser li muy def ak li muy wax ngeen xoolal teg ko ci temps di ko démonter devant les sénégalais mais sénégalais dinañ leen may bopp parce que am na ñu ko bëggul parce que Sénégal adduna kenn mu kenn bëggu ñëpp mënoo taxaw ñëpp bëgg la mais jël leen seen temps mais mënu leen teg ci ay diffamation sur diffamation mënul nekk dëgg dëkk bi nag bu ñu bëggee mu baax bu ñu bëggee mu defalu ñun suñu bopp dañuy waxante dëgg li ñu bëgg dañ koy xam li ñu bëgg mooy dëkk bi jaar ci yoon li ñu dëkk bëgg mooy Sénégal tegu ci yoon te Sénégal pour mu tegu ci yoon dafay tegu ci dëgg ñi ma gis ñuy défilé ñu bari ci ñoom naan j'apporte mon soutien à mais vous étiez où quand on arrêtait des des gens innocents xam nga lu doon neex mooy yéen ñii di wax tey fekk démb bi ñuy jàpp ñun suñu rakk yi ci lenn nag ci dara di leen tëj ci kaso yi fekk da ngeen doon wax mais da ngeen na noppi woon mais da ngeen na neutre woon tey ngeen ñemee génn taxaw di wax mën ngeen ko de parce que tey y a pas de lacrymogène jàmm rek am ci réew mi jàmm rek am ci réew mi tey bu leen neexee ngeen génn défilé ñëw taxaw xam ngeen ni tey li ngeen def dong war ngeen xam ni dëkk baa ngi changé ñëw ba buntu cybercriminalité yendu bi suba ba ngoon ku wax jox sa moro ngeen taxaw joxe apporte seen soutien <laughs> te kenn dàqewu leen kenn jàppu leen kenn traumatisé wu leen kenn metitalu leen mais rien que ça vous devez accepter que ce pays a changé mais waxante leen dëgg fii nag làmmiñ benn du fi lekk moroomam te ñorul ñun ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey c'est que benn instant dañ leen nawloowul dañoo jàppuloo ni c'était le moment parce que ñun xam nañu lan moo tax sénégalais yi xeex jox joxe réew mi jox ko régime bi fi nekk te régime bi fi nekk mu ngi tegu ci yoon boobu yi tax yépp mbir yi di yëngatu xam nga mooy lan ñu ngi jëm ci élection ñi sàccoon xam nañu dinañ leen tëj ñi dëngaloon xam nañu dinañ leen jubalaat léegi nag ñen ñi di wut immunité parlementaire ñi diwut wut ku nekk di wut foo làqu ñu nga xam ne musuñu ànd musuñu bëggante suñu bokk jëmuwaay nee na ñu dañoo taxawal ay coalition tuddee ko sàmm sa kàddu mais sàmm sa kàddu ba mu juddoo la dee moor nee la ndax li tax mu nekk moor mais mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd kenn ci ñoom ku nekk sàmmul kàddoom ci ànd boobu mu ànd ak nit ki ki ci des ndax ñàkk sàmm seen kàddu moo tax ngeen ànd bu ngeen sàmmoon seen kàddu du ngeen ànd ñi xeexoon démb ñi reyante woon démb ñi xastante woon démb ñoo wëlbati ko ànd foofu kàddu amu fa ba sàmm di ko fa am dañu ne duñ leen may buzz dañu ne duñ leen tudd dañu ne dañuy avancer parce que ñun xam nañ fi ñu jëm mais dañ leen gis nag ngeen foog ni yéen mën ngeen tuur leen dem sénégalais ñun ñu daal dalal xelu sénégalais di leen wax na leen ñu fi ñu nekkoon ñu ngi foofu ba tey dara bougé wu fi dara bougé wu fi sama njaboot gi nag sama mbokk yi sama xarit yi patriote yi man nag am naa problème ak yéen am na problème ak yéen potum biir nekk la am na ñu ñu rax nag danañ ko yóbbu waaye ba tey rek ndax mën ta ñàkk ndax mënumaa jot ku ne wax ak yow man dama ni man ay mbir dina xew suba ba ngoon duma xam ak duma ko yëg ndax am na yoo xam ne duma ko suivre mais kan moo koy yëgal kan moo koy dagg partage